fexe ba bu 18h jotee bu ñuy wàññi xob yi nga mun fa teew te ci loolu ñeneen ñu bokkul sax ci personnel yi te enrôlé wuñ leen ñu war a ñoo représenté ci bureau de vote yi loi bi nee mun ngeen nekk ay scruteur maanaam ñëw fekkee vote bi jàpp ci wàññi bi bu ko defee buñ ko affiché ci bunt bi ñëpp xam ku nekk lu mu am élection yi kenn du ko foqati élection yi kenn du nangu Macky Sall foqati ko Macky Sall mi ngi def tout pour tere président Ousmane Sonko mu bokk sénégalais yi xeex nañ ko mais am na duñ ci mën a muñ Macky Sall tëj na mille sénégalais métti na loolu mais famille yi ngi koy muñ avec dignité xeex ko ba fu mu ba fu xeex yam ñu ngi ko ne di ko xeex Sall dissoudre na Pastef nit ñi muñ nañ ko donte xeex nañ ko ba fu mu ba fu mu yem mais am na loo xam ne sénégalais duñ ko moom mooy nag jàpp ne loolu xob moo ko fi jëlee ñu xëy voté ba ngoon jot nga bëgg nag. foqati vote boobu loolu personne ne l'acceptera dans ce pays ça c'est le paroxysme sénégalais yi loolu bu ñu fa yeggee gën a ci taxaw seen taxawaay mais ñun waa Pastef ñoo war a fexe ba du ñu yegg foofu mooy fexe ba bu ñu voté balaa vingt une ñun Pastef xam nañ suñu résultat bu yàgg parce que dix-huit heures dañuy tëdd loolu voté loolu mooy li nga xam ne aussi ñu ngi ciy incité ñëpp ñu bindu ci section communale yi ak coordination départementale Pastef pour nekk nos représentants dans les quinze mille vingt cinq bureaux de vote te bureau de vote yi sax dina ko ëpp parce que après dañuy defaraat carte électorale bi dans les prochains jours fi may daanelee nag mooy wax sur la mission d' observation électorale de l'Union européenne c' est un point extrêmement important waa Union européenne dañu ni comme ni ñu ko defee woon ci élection présidentielle 2012 élection présidentielle 2019 dañu bëgg def ginnaaw bi ñu ko ñaanee état du Sénégal état du Sénégal nangul leen ko mooy def leen accréditation dañuy ñëw def mission d' observation électorale maanaam saytu vote bi ci élection yu ñu jëm daal di def benn communiqué am ku ñu tabb nga xam ne mooy l' observatrice en chef muy jork du député au parlement européen damay wax ni mission boobu suñu xel dalu ci te duñu nangu mission boobu nekk. faire valoir bi nga xam ne mooy avaliser maanaam mooy valider fraude électorale yi ma Macky Sall bëgg a def mooy bëgg a tànn candidat yi bëgg a tànn ñiy voté waaw tànn candidat tànn ñiy voté loolu nag du ñu nangu mission Union européenne boobu nekk loolu lu tax mooy Union européenne ñoom xanaa dañu yëpp nit ñi ba ñoom ñu ne mission d' observation électorale te xam ne élection c' est un processus. te processus boobu noonu maanaam yoon la boo xam ne mi ngi tàmbalee ci inscription sur les listes di jeexee ci proclamation des résultats définitifs waa ñoom lu tax ba ñuy inscrire ci liste électorale yi Macky Sall au lieu mu def révision ordinaire nga xam ne at bii amul élection 2023 élection amu fi de six mois lañu waroon def élection yi nañu waroon def révision yi Macky Sall ne révision exceptionnelle laay def maay pour mën a fixer ñu ko daan fixé deux mois wala trois mois mu ñëw fixé ko un mois fexe ba fixé ko ci période boo xam ne korité ci la am Pâques ci la am férié am na ci muy muy 4 avril ba waxtu bindu bi boo génnee dimanche yi dépassé wu 22 jours boobu ana union européenne dégg benn bi ñu toogee ba dernier jour 18 heures ñu gis ay milliers de sénégalais fees ba léegi ci lieu d'inscription yi muy ci mairie yi commission yi fu ñu ko tijji. au lieu que pouvoir bi comme ni ko yoon mayee Macky Sall bu ko neexee mu prolongé ko pour bàyyi sénégalais yooyu bindu parce que vote sax loolu da ci am 18 heures bu fa nit ñi taxawee dañ leen di may ñu voté prolongé ko jël nañu acte pour may ko préfet sous-préfet union européenne boobu fu nekkoon ba Macky Sall bañee ne sénégalais jeex na yéen du ngeen inscrire boobu ana union européenne bi ay sénégalais inscrire ci liste électorale yi mu am ci ku ñuy wax président Ousmane Sonko di électeur. ñu xëy rajee ko ci liste électorale yi sur la base de la contumace alors que décision de justice boobu ñu basé wu anéantiru na parce que moom arrêté nañ ko le 28 juillet boobu année union européenne da ngeen ko dégg bi tribunal d'instance bu Ziguinchor jëlee décision ne Ousmane Sonko na ngeen ko delloo ci liste électorale yi DGE bañ DAF bañ boobu union européenne da ngeen ko dégg dama leen di laaj. ma laajaat leen ne leen encore une fois bi Sénat defee injonction ne yéen waa DG li ngeen def du yoon jox leen Ousmane Sonko fiche de parrainage am DG bañ na du ko def Union européenne dañ ko dégg te loolu ci processus électoral bi la bokk parce que c'est une mission d'observation électorale et ils ont bien parlé du processus électoral dinaa ci ñëw dañ dégg boobu Union européenne bi ñu tribunal d'instance hors classe de Dakar joxaate dëkk muy 14 décembre dem ministère de l'intérieur ñu bañ. DGE bañ CDC bañ muy caisse des dépôts et consignation boobu da ngeen a dégg union européenne kenn déggul union européenne loolu mooy dëgg est-ce que da ngeen dégg union européenne bi c recevoir ay jël suñu 30 millions jox ñu quittance ba pare génn doo ko def point de presse daal di ne ñu jox quittance du ñu jox attestation bi confirmé quittance boobu da dégg union européenne personne n'a entendu l'union européenne loolu mooy processus électoral parrainage bii nii nga xam ne ab juridiction juridiction la moo ëpp doole mission d'observation c'était une juridiction communautaire muy cour de justice de la CEDEAO waxoon ne nañ ko dindi Macky Sall bañ ak gouvernement ma duñ ko exécuter te yoon imposé lañ ko boobu Union européenne dañ ko dégg parrainage bii tey ñu def mu nekk mascarade ñuy modifier ay clé wu nit dañoo dégg Union européenne tirage au sort si nañu war a basé pour déterminer kan mooy bokk élection présidentielle muy tenter chance boobu dañoo dégg union européenne processus boobu yëpp teg nga xam ne tey am na ñeenti candidats yu nekk kaso muy président Ousmane Sonko muy Bassirou Diomaye Faye muy Cheikh Omar Diagne muy maître Moussa Diop Cheikh Omar Diagne sax mu ñu dépose dossier de candidature parce que amul woon possibilité pour coordonner parrainage parce que dañu ko dégg kaso kon c' est une élimination de candidature c' est un candidat éliminé boobu union ko. bi ñuy créer ay dossier diffamation ay dossier viol pour empêcher adversaire politique ñu bokk ci élection yi muy président Ousmane ko te nag seen bëgg-bëgg boobu noonu antoogul ba léegi te yàlla bu mu antu mais boobu Union européenne kenn dégg ko une élection c'est tout un processus kon nag seen mission bi buñ ko tuddee mission d'observation électorale nañ ko tuddee mission d'observation du vote maanaam vote jour vote bi rek ñu ñëw observé après ñu xëy ne vote bi s'est déroulé dans des bonnes conditions parce que sénégalais yi dem nañ voté après wàññi nañ xob yi loolu pour avaliser ay tappale la du lëre benn sénégalais du lëre benn acteur politique wala benn observateur sérieux c'est important beneen bi mooy dafa am incohérence entre démarche boobu Union européenne jël ak wax bi nga xam ne moom la ki jiite mission d'observation bi wax kii jiite mission d'observation bi ma tuddal leen euh, turam mu ngi tudd Malin Diorque député à l'Union européenne au Parlement de l'Union européenne qu'est-ce qu'il dit nous espérons contribuer à la réalisation d'un processus électoral transparent et inclusif nee ñoom li ñu bëgg ci mission bi ñu def mooy fexe ba processus électoral bi gis nga waxul waxul vote bi de processus électoral bi <laughs> te nag li ma fi wax processus bi la dañuy fexe ba mu ba suñ mission bi permettre processus électoral boobu daal di leer muy transparent ñaareel bi mooy mu inclusif maanaam ñi war a bokk yëpp bokk bokk lu inclusif moom moo ko wax de kenn wax loowu ko kenn sexalu ko lem kenn tiimalu ko fetal pour mu wax inclusif yow heure bi ngay wax inclusivité du processus électoral ak li fi romb yëpp loolu c'est vraiment de l'incohérence bi ci tegu mooy ngeen nand nag stratégie wu régime bi nga xam ne ci tappale la nekk parce que nag xam na ne processus électoral bi biaisé na ko à travers parrainage à travers à travers défiance des décisions de justice à travers sélection des candidats à travers Sénat jël injonction boo xam ne arrangé wu la nga jëlee fa ñi fa nekk ñëpp jël ay membres APR yóbbu leen Sénat daal di def renouvellement général te loi bi ne renouvellement partiel ngay ngay renouveler Sénat bi nga war a renouveler un tiers maanaam bu dee bu ñu dee ñett ñen benn bi mooy dem benn groupe bi mooy dem yeneen ñaari groupe bi des noonu lañ koy renouveler bi def loolu processus électoral bi ba pare bëgg a tourner tey nag ne accrédité nañu waa mission d' observation union européenne pour ñu ñëw xool ba xam élection yi jaar na wala jaarul yoon loolu. jàpp naa ne képp ko am xel mënu la lëre mënu la mënu la nax en fait bi ci tegu mooy dafa am contradiction bi ci am parce que élection dafa am ay organe maanaam dafa ay banqaas yu ko yu ko yu ko wër dafa am banqaas yoo xam ne ñoo ëpp solo ci élection yi mun nañ ci boole l' administration électorale mooy ñiy organiser élection yi te nag ministère de l' intérieur bu ñuy wax organiser élection ñoom ñoo tax daaf mi nga xam ne mooy gérer fichier bi DGE bi nga xam ne mooy organiser élection yi fépp ci Sénégal te ñi ko ci jàppale mooy gouverneurs yi préfet yi ak sous-préfet yi pour ñu yóbbu la matériel électoral yi enveloppe yi bulletin yi urne yi lépp administration boobu tey moom mooy bañ ne du respecter décision de justice gis ngeen Thiendella la Fall li mu comporté woon foofu da ngeen fa dégg euh, euh, euh, gars yi waa Union européenne wax ci waaye Macky Sall loolu administration électorale déjà moom teg na fa ay nit ñoo xam ne ay exécutant nañ lu mu leen wax mu def ko te muy respecté yow muy benn muy benn organe boobu bu yàq benn organe bi nga xam ne mooy le principal arbitre du jeu électoral muy Sénat Sénat jël injonction nga xam ne dafa am pouvoir d' injonction maanaam mun na joxe ndigal pour administration def ko am na pouvoir de sanction mun na sanctionné autorités yi nga xam ne dañ leen digal ñu bañ mais mën yooyu def substitution d' euh, action maanaam li ngeen waroon def léegi mun naa ko defal sama bopp. nga xam ne lépp lu ñuy def ci processus da koy teewee def ci cachet cachet boobu noonu su amul du jàll ba ci procès verbaux yi nga xam ne mooy nekk ci bureau de vote jour proclamation des résultats ak ci commission départementale de recensement des votes ak commission nationale de recensement des votes Sénat boobu noonu Macky Sall respecté ko moom moom ak nguuram waa justice bi nga xam ne nag moom mooy arbitrer les litiges électoraux jël ñaari décision muy Ziguinchor Sabassi Faye Dakar Ousmane Racine Thion Macky Sall respecté wu ko waa ñooñu ñoo ëpp doole ci processus bi de ñooñu dañuy dogal dañuy dañuy àtte muy Sénat muy muy justice ñi nga xam ne ñooy organiser l' élection l' organisation matérielle muy administration électorale Macky Sall yàq ko teg fa ay nit ay spire ñoo xam ne lu mu leen wax ñu def ba pare ci côté boobu muy may doole ay mission d' observation ki nga xam ne moom day observer rek kooku nga koy crédibiliser. mais ñi nga xam ne ñoom ñooy àtte nga ne leen bu ngay àtte bi moo ko faale loolu sénégalais yi xam nañ ne kon mission boobu mission ñu dem jox buñ ko crédibilité lu dul ñu gis ñoom acte yoo xam ne dafa contraire ak li bi ci mujj nag ci li may wax ci mission d'observation de l'Union européenne mooy Union européenne bu ñu koy wax dañuy wax communauté internationale bi te nag communauté internationale bi jot nañu wax ak ñoom parce yéen a ngi fàttaliku le 27 février 2023 bi ñu jugee le président Ousmane Sonko dafa def un message à la communauté internationale bi def ko ci français def ko ci anglais def ko ci arabe wax ak ñoom wax leen li xew Sénégal yëpp artu leen ci élection yu jëm li ma Sall bëgg a def nga xam ne organiser wu élection mascarade lay organiser sélection lay organiser kenn ci ñoom waxut bi sénégal yi génnee di manifester ñu jël ay nit bi ñuy tiiree ci kaw Sénégalais ay journal tubaab ñoo wax ay France 24 ak yooyu ay ay média mais communauté internationale bi kenn déggu leen ci li ñuy wax l'union interparlementaire nga xam ne benn bànqaas la bu ëmb assemblée yi nekk ci àdduna bi nga xam ne union européenne am nañu fa ay représentant bi ñu waxee Macky Sall ne ko respectel droit wu Ousmane Sonko bi ngay bafoué mais boobu union européenne boobu noonu dañ ko dégg mu wax te pourtant am na fay représentant communauté internationale dañu dégg ñu wax kon d'une part bu leen opposition bi interpellé c'est un silence coupable ñoom la posture de l'omerta nañu nañu adopté maanaam noppi ne tekk ne pat mais ñu ko gisul gëmm seen bët bu élection ñëwee nag des na presque un mois ñu wàcc ne dañuy def mission d'observation bu élection yi jeexee ñu ne élection jaar na yow Sénégal élection sàcc ko si jour vote mënul nekk mais mën nga teg système boo xam yaay tànn candidat yaay tànn électeur ñun opposition dinañ liggéey si muy war a liggéey surtout ñun waa Pastef pour mbir yi jaar yoon waaye na <laughs> loolu doyut yéen communauté internationale bi soit da ngeen di noppi mandu comme da ngeen ne da ngeen ne woon parti ba Macky Sall di rey Sénégalais yi ba Macky Sall di tëj mille détenus politiques ba Macky Sall di dissoudre opposition bi muy Pastef l'opposition la plus significative la plus crédible le chef de l'opposition bi da Macky Sall tëj bi muy défier les décisions de justice comme da ngeen noppi continuer leen noppi mais pas da ngeen di ñëw après di avaliser kon nag lii artu la à l'endroit de la mission d'observation de l'Union européenne di wax ne nag bu ñu waxtaanee opposition bi comme ni ñu koy defee ak candidat yeeg seen représentant nit ñi dinañ leen dem fekk yi ñu toog waxtaan waaye dinañ leen jébal këyit pour wan leen ne nag seen doxalin ak seen approche seen démarche dara jaabu ci yoon te ñu ngi xool ba xam est-ce que fi ñu jëm dinañ ko nekk doxalee c'est important fi may daanelee nag mooy ñaawul waat parrainage bi te di wax patriote yi bu leen ñaawal benn candidat boo xam ne parrainage moo ko éliminé quand je dis nag waxuma ñi nga xam ne dañ doon dañoo bokk ci stratégie régime bi pour yaatal mbir yi pour après deuxième tour bu ñu jàppee ne day am te du am insha allah pour ñëw ñu retrouver waat quand je dis candidat waxuma ñi nga xam ne dañ dugal dugaloon pour ñu dem retirer ay fiche ñu jox leen ay ay trente mille parrain pour ñu ñëw gonfler le fichier pour ku ñëw ñu la doublon yi ba ñun Pastef ñu naan ñun dañoo am doublon quoi Pastef ak Pastef représentatif bi mu am ci réew mi quand je dis ñi nga xam ne déposé wuñ sax ay quittance CDC nga xam ne c'était pour après conseil constitutionnel dina def communiqué comme démb boole Ousmane Sonko ci loo boobu noonu pour juste pour ñoom ñu avaliser li Ousmane Sonko wax waxuma ñi nga xam ne indiwuñ sax quand même c'est pas du sérieux indiwuñ sax extrait de naissance indiwuñ sax casier judiciaire indiwuñ sax carte boo xam ne carte électeur la donc loolu taxul mais candidat yi nga xam ne dañ leen éliminer par le parrainage de c'est de façon injuste c'est de façon injuste parce que parrainage c'est de l'injustice c'est pas une question de stratégie politique parce que ñenn ñi mun nañ nekk suñu allié déedéet c'est une question de principe Macky Sall sax bu ñu ko doon teg injuste ñu doon koy dénoncer parce que question de principe la donc loolu comme système bi leen éliminer tegul ci yoon kenn waru leen ñaawal ci loolu parce que parrainage tegul ci yoon donc nañu def focus kon ci li ñu dëgmal tama rappelé waat ko mooy levée de fonds international bi am dimanche 14 janvier nañu dem dëgmal opération fatt fépp ak porte à porte yi ñuy def dans tous les départements pour sensibiliser sénégalais sur les listes électorales ak seconde phase wër nombre bi nga xam ne mooy identifier ñooñu woo pour pour ñu dem retirer seen carte électeur mais nañu dëgmal aussi lépp lu ñuy def pour préparer mobilisation électorale bi war nga xam ne def campagne bu moderne bu exceptionnelle bu musul am ci Sénégal mais enfin ñu dëgmal ni ñuy fexe ba sécuriser vote bi pour teew fépp ci bureau de vote yi ba suñu victoire bu ñu war a am pour sauver le peuple sénégalais et déboulonner le système kenn bañ ko foqati loolu laa bëggoon a échanger ak yéen et comme je l'avais dit en première live fan yee weesu exercice bi dinañ ko continuer di wéyal durant toute toute toute l'élection présidentielle ba élection yi ñëw pour ñu ñëpp ñu àndandoo euh, jëlee fi ñu fi nekk tabax Sénégal bu bees et libérer tous les prisonniers politiques et le président Ousmane Sonko aussi est réhabilité passif. Merci à tous et excellente nuit. Et toi, tu es dans leur camp, tu es avec eux, hein? tu es avec ceux qui nous oppriment.